may yàgg a xeexal tundoo di tey mu ñëw sotle ma ci xeex boobu ak ñi mu àndal waa son seet ñëpp ma dëkk bokk koog Issa Sarr ak Fallou Diagne kenn ku ci nekk di défendre tundoo di ngir tundoo di jëm ca kanam waaye nag sama xel daal bu baax a baax a baax ma bëgg leen a wax ni leen 2012 ba léegi nii bépp tiiwaan ndox boo xamante ne tudd tëdd na fii nañu jàpp ni honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga moo ko tëral sama koñ ba ma dëkk man sama koñ ba ma dëkk man lum gàtt gàtt tëral na fa 546 7 mètres ndox def fa 50 na yoo xamante ni keroog ba ma demee ba nar a am jafe-jafe si autorisation sax moom moo ko lijjanti loolu kii moo ko def honorable mii man duma wax bilan président Macky Sall kooku moom mooy chef de bilan mais bilan Abdoulaye Seck da Sadaga dong jar nañu wata élection yi Sadaga mii bilan kese dafa doy sëkk parce que 10 ans la toog 10 ans sans défaite 10 ans sans défaite gis ngeen fi ay député yoo xamante ne ñu ngi laajaat 5 ans barki dem lañ leen génn ci koso bi ngir ay saaga ak xotti war may njiitu réew te Serigne Mountakha bu waxee ñu wax wegg-weggal ca côté ba Abdou Lahad Abdou bilan bi gën a riis ci àdduna mooy lenn oto bi mu njëkk am oto bi mu njëkk am booba oto bi mu njëkk am nekk xale adduna da wuti ko li mu njëkk def oto oto neex lool da koo jël jox ko addiyee Serigne Saliou Mbacke ñu yóbbu ko hôpital Jannatu Mahwa moom la njëkk a def ab ambulance foofa Abdoulaat mii moo ko def Abdoulaat Seck sa dagga dix ans muy fay ay salaire di ci jàppale handicapé yi di génne si ab salaire fukki at weer wu dee muy jox ko handicapé yi moom mi moom mi moo ko def ana ko ko fi defaat ci député yi ngeen def ana ko ko fi defaat Abdoulaye Seck Sadaga nawet bu jotee baykat yi lekk la ñoroon yëpp jaaxle aw jiwu day jël ay toni toni toni ton jox ko baykat yi di leen dem leen bayi bu tabaski jotee mu yëkkati ay xar jox leen di leen dem leen ba dem leen bayi bu màggal jotee mu yëkkati nag jox leen di leen bayi kooku député bu ko fi def laat Seck Sadaga ndax du mbiri son comme jël naa sama jigéen jël sama responsable mu indi 200 mètres ndox jox ko ko ci sama tur am ma lu dul sant ko di ko gërëm leneen li ngeen ko mën a fayee nag mooy xam naa ni ay affaires risques ngeen ay affaires authentiques ngeen mais dëkk bi bari na ñuy wax waxi saret bari na ñuy wax waxi picc di jabulisé di leen xamal ni liste bi nga xam ne si na mooy liste bu baax bi mooy maron bees bi bu leen kenn jabulisé bu leen kenn wax lu tax ba ngeen war ko fee mën a bàyyi maron bees bi na ko ñëpp xamee bu suubaa lépp loo nga xam ne si ne mooy engarokat ak bureau Tindodi bii ñu gañe ko 100 pour cent man loolu laa gëm loolu laa bëgg. ñii nga xam ne maanaam ñoo nekk fii ci secteur bii te nga xam ne maanaam wóor na ma ne lépp loo xam ne waxtaan naa cee ñoom loolu dañ ko def lii moom dana ko am fii moom xaw ma lu mu lu muy waaye loolu moom dana am fii moom waaw ñu ngi koy gërëm nag di ko sant ndax xëy na tey la ñëw fii waaye li mu def ci dëkk bi dara ump nu ci lépp leer nañu naññ amul lenn loo xam ne dana ko def te yàlla taxul ak yonent bi ak Serigne Touba borom dëkk bi ndax bu leneen bu doon bu doon lenn lenn tax kon du ko def waaye li muy liggéey moom Serigne Touba dong la koy liggéeyal liggéeyalu keneen Serigne Touba la gëm te moom lay liggéeyal loolu leer nañu nañi ndax lu lu bëree bëri mi ngi koy am te mënoon na koo def feneen te li muy def lépp taalibe Serigne Touba dong la koy defal kon. aya tey kenn ayewul jigéen ñee aye parce que photo Maron Beuge bii jigéen ngeen gis photom ne ci daaj ci biir. sagam nag saa bu ñu toogee góor ñi ñooy xëccoo góor ñi ñooy soxla tey góor soxlawul jigéen moo soxla suñu moromu jigéen moo soxla te lu jigéen bokkul baaxul lu jigéen deful defuwut fépp fu ñu tase ñun jigéen ñi ñoo ciy jël ndam ministre de la femme téeméeri million la ñu indil fii ci Touba jigéen ju ne dina ci jot wàllam sagam ñun ñoo soxla nag ah luñ koy waxee bu kan bëggee ku xëcc yaay yaay perte nuñ ko olof léebe bu jinne bëggee daqaar ku yéeg daanu tey nag ñun ñoo bëgg ñun jigéen ñi Mimi Touré borom ree ju neex jii moom lañ jiital ci suñu liste bii kon nag buñ ci des ginnaaw benn yoon nañ xam ne tey jii Macky Sall tànn na bu baax bi dañu jëm ci ay élection ñu bëgg président am majorité à assemblée nationale ñu bëggit ngeen jàppale ko ci bu bisu wate jotee yéen ñëpp ngeen mobiliser wu dem ci bureau yi jël marron bees bi ngeen bate ko wateel président Macky sàll ngir mu am ndam assemblée gën a mën a jàppale jigéen ñi gën a mën a jàppale góor ñi gën a mën a jàppale dëkkub Serigne Touba bi. bëgg li ngeen nekk moo leen fi taxawloo bëgg président Macky Sall moo leen fi taxawloo bëgg honorable député Abdoulaye Seck Sadaga moo leen fi taxawloo bëgg tamit nger mi nga xam ni. lu jóg nii sama koñ lu mu jóg nii Tindodi moo leen fi taxawloo kon nag li nga xam ni tey moom la honorable di wut si ci yéen mooy ngeen daas fanaanal kenn ku ci nekk na seet carte de am carte électeur am denc ko di xaar la 31 incha allahu rabbi ndax nag buñ xoolee ba tey président Macky Sall amul majorité assemblée catastrophe la. ku ne xam na ni chantier yi nga xam ni commencé na ko ci dëkk bi du ko mën a àggale ndax am na ci ñoo xam ni ñi ngi mbubboo ni dañoo gëm Serigne Touba te gëmuñu ko te président Macky Sall ku ne dégg na li Serigne Mountakha wax ci moom muy lu leer loo xam ne ñëpp ci teg seen bët fii bi ñëwee di ko ñaanloo Serigne Mountakha dañu ko duma la ñaan duma la ñaanal dama lay boole ak Serigne Touba mu ñaanal demal ca barab ba loo ko wax mu defal la ko loolu xalifa général de murid mosu ko wax kenn léegi nag nee na ko maa ngi commencé di ñaan. loolu nag murit yëpp dañ koo war a dégg xam ni dañoo war a takk laxasaay doon ay Baay Faal li Sëriñ Muntaxa bëgg ñu defal ko ko. kontaan naa ci jigéen ñi kontaan naa seen taxawaay pour ma wax la kontaan naa deux cent lañ leen mayoon dolli naa ci cent mètres. li tax ma def ko li tax ma def ko. mooy dégg naa jigéen ñi li ñuy wax nee nañ dañoo sonn ci wut yanu ndox mais dégg naa ko mais mel na ne li ngeen di wut dana saafaru ba munta saafaru cent pour cent dana saafaru quatre-vingt-dix pour cent laay wax ci zone Z ñun ñëpp dañoo ànd fii suñu chef la suñu territoire la ku fi jéem a dugg it da ngay jéem a duggantu rek mais dugg génn ndax zone 7 duñu ñu caaxaan ay nit yu dëggu yu dëgër ñoo fi nekk nit ñoo xam ne seen engagement ci parti bi du engagement bu yomb parce que mën na ma wax ne zone 7 ni ma yàlla ñi ma yàlla booleel waxuma 100 pour cent yëpp ñu ngi ci ligne bi mais am naa 90 pour cent ci sama ligne ànd ñëpp ànd nag yomb ki at yii maa ngi assemblée national lu ko jiitu it maa nga fa woon parce que chargé de mission laa woon te président Macky Sall moo ko def te bi ma koy defal damay tooñ gaañi chargé de mission maa ko njëkk a doon ci département Mbacké damay ñëw pour jàppale ko fii ci tuuba xeex li ma doon xeex pour mu am ndam te loolu mooy sama waru xaaruma ci président Macky Sall lenn lu ne ci kanamam ne ci ginnaaw kon maa ngi ñaan sant waa sama waa Joal ànd gi ñu ànd ak man ci suñu responsabilité mooy président am ndam Touba kon maa ngi ñaan waa wet gi yëpp ñu jàppale li ngeen wax lépp dégg naa ko mais da ngeen xam ne yéen waa Tindodi ginnaaw buñ nuyoo si Cheikh Aliou ak chef du bi ñu ngi leen xamal ne amuñu lu ñuy xaar ci yéen lu dul suuru élection ngeen voté jàppale président Macky Sall liste yi nag bari na mais liste bi ci gën mooy liste bi ñu tuddee benn Bokk Yaakaar